بيان حقيقة السحر وحد الساحر وأن منه علم التنجيم وذكر عقوبة من صدق كاهنا والسحر حق وله تأثير لكن بما قد قدره القدير أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر وصح عن حفصة عند مالك فيه أقوى مرشد للثالث هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم فدر هذا وانتبه وحله بالوحي نقصا يشرع أما بسحر مثله فيمنع ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu del si ànd ak al imam ahmad xaafis ibnu ahmad alxakami ci bunt bu am solo ci téeréem bu am solo bi bunt bi tey mi ngi jëm ci wàllu njëbar ak lu ca aju moo tax mu ne faslun fi bayaani xaqiqati sixri wa xaddi saaxir وأن من وأن منه علم التنجيم وذكر عقوبة من صدق كائنا فصل في بيان حقيقة السحر kon li ci jëkk nee na mooy leeral dëgg-dëgg yi njabar ndax lu am la dëgg-dëgg wala amut waxaddi saaxir ak ki nga xam ne ab jabar la lan mooy géttan bi ko sharia teg maanaam sanction bi nga xam ne dañ ko koo teg mooy ban wa anna minhu ilma tanjim maanaam kon tudd lenn ci xaaji xaaji njabar yi maanaam yan façon la njabar am wa dikri uqubati man saddaqa kaahina ak koo xam ne dafa gëm ab jabar lan la ko sharia teg kon bëgg nañoo xam ndax njabar dëgg-dëgg lu am la nag wala dañ koy wax rek te amut lan mooy xaaji njabar yi am su fekkee njabar am na jabar bi ci boppam lu dib àtteem ak yan peen la ko lislaam teg ak ki ko gëm yan peen la ko teg ñeenti tomb yooyu moom la boroom téere bi leeral ci bind bi mi ngi tàmbalee ci wa sixru xaqun wa lahu taasiru lakin bima qaddarahu alqadiru nee na wa sixru njëbar xaq kon lu am la buñ ne xaqa alcheyu yaxiqu mooy sabata maanaam lu sax la ne am na loolu moo tax dëgg ñu tudde ko xaq ndax lu sax la waaye nag fii bul ko firee ne njabar dëgg la déedéet du dëgg lu sax la nag lu am la waaye nag baatil la du dëgg du lu du lu baax lu bon la kon wa sexru njabar xaqu lu sax la walahu te ñeel na ko tasiiru jeexit maanaam njabar kon lu sax la te am na ay jeexit yoo xam ne mën naa jeexital ngi bëgg a bari de mbaa du jaawaloon alhamdulillah njabar ak njabar ci boppam ab xam-xam la bu won boo xam ne liñ cosaanam mooy ci seytaane la jóge iblis mooy dimbaleenteeg ay soldaaram ci jinne yu bon ya nga xam ne ñoo di njabootam di leen xamal ay xam-xam yoo xam ne da koo sàcc dafa yuurndu di déglu xabaar ya ba sàcc ay xabaar jox ko seytaane jinne ya seytaane jinne ya am seeni xarit ci doomu aadama yoo xam ne wuy si nañ leen ca kéefar gañ leen di woo ñu xaritoog ñoom lañ sàccoon ñoom it ñu wasal leen ca su ko defee ñooña seeni melokaan la koy fësal mooy li ñuy wax gaa dara luy am dana ca nekk waaye bu ñu waxee lenn luy am danañ def téeméer yu ca ànd yoo xam ne dara du ca dëgg lépp ay fen lay doon ndax doomu aadama yi su fekkee ne am na ku leen wax dara mu am benn yoon dañuy daal di tàmbali tasaaroo ci mbooloo mi ne kooku moom lu mu la wax rek du dañ ñooñu ñoo koy publicité ñu ne kii boroomu xam-xam la waaye su waxee benn buy dëgg am na téeméer yu mu cay boole yoo xam ne benn du ca doon dëgg waaye nag lu am ay jeexit la ab xam-xam la waaye dadul xam-xam bu baax dadul xam-xam bu baax moo tax borom bi tabaraka wa taala bi muy melal jabar yi nga xam ne ñooy ñu daje woon ak Muusa alayhi salaam maanaam jabari firawna ya borom bi dafa yatuuka bi kulli saxaarin alim danañ la andil ay njabar yoo xam ne ñu am xam-xam lañ maanaam ñu xam lañ kon borom yi xam-xam lañ waaye nag xam-xam ba baaxul inna hada la saaxirun alim kii am jabar la boo xam ne bu xam la maanaam bu xam wàllu njabar kon ab xam-xam la boo xam ne dañ koy xamlu di ko jàng ba xarañe ko wëlbatiku nag am yooyu pratiqué yu baaxut yoo xam ne dafa jooyoog santaane sun borom tabaraka wa taala ba jinne yaag seytaane yaag ñu bon ña man laa mosal ca yu bon yañ yor su ko defee ca loola la nit ka di doone ab jabar kon bokk na ci yi nuy won ne kon lu am la lu am jeexit la tudde googu ko sun borom tabaraka wa taala tudde xam-xam jabar bi mu tudde ko koo xam ne alim la muy borom xam-xam bokk na ci yi wéral ne lu am la ba tey mooy digle jëm digle ñu muslu ci qul audu bi rabbil falaq min sharri ma xalaq wa min sharri غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ñooñu ñooy jabar ya ñi nga xam ne dañuy ñaan di ëf ci ay pas-pas di fat mu ne ko qul a'udhu waxal ne danaa muslu ci ñooñ kon lu amul borom bi tabaraka wa taala dooxub yonentam ne ko maa muslul ci ñoom lu ñuy muslu lu nekk lu am la kon njabar am na am na it ay jeexit borom bi tabaraka wa taala nee na yufarriquuna bihi bayna almari wa zawji nee na ñooñu dañuy tàq bokk na ci ñi ñuy def tàqale diggante ñu ànd ñu ànd ñooñu mën nañoo doon jëkkër ak jabar mën naa doon nit ak xaritam ci seenu njabar kon am na jeexit ginnaaw day tàqale diggante nit ak jabaram li nu koy gën a fétalal ci ne am na jeexit moo di yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci boppam ak njabar laal na ko maanaam jabar nañ ko mu am jeexit xam nga ne lépp lu aju ci waxyu muy alquran miy wàcc ci moom ak diine gi nga xam ne moom lay jàngale ak di ko dund loolu sunu borom tabaraka wa taala moo ko aaral boppam inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafidun noo wàcceel suñ bopp diine ji noo koy gardeel suñu bopp kooku moom kon seytaane munu caa àgg waaye nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme doomu aadama yoo xam ne daa yor yaramu doomu aadama di dund ni doomu aadama di dunde di metit lu ni muy metit loo di aajowoo yi doomu aadama di aajowoo ci lekk ak naan ak wér-gi-yaram yonent boobu njabar dal na ko toog na ba mu yàgg ñu seetlu ci ay mbiram yi muy jëflante ci wàllu àdduna léeg-léeg am yu bari yoo xam ne defagu ko day yaakaar ne def na ko bañ ne ko defoo ko mu door a xam ne def na ko te xam nañ ne melul woon noona biñ gisee ci moom alayhi salaatu wasalaam xeeti jaxasoo yooyu jannuk suba la xëy ñëw nettali Aïcha radiallahu taala anha ne ko ah man day li nekkoon fi man dañ na li ma doon jàmbat fan yii mu ne ko nu mu dañe mu ne ko borom bi tabaraka wa taala dafa yebal ñaari malaayika ma gis leen ñu toog fi samay tànk kenn ke ne moroom ji lu ko dal ki ci des ne ko mapp buubun maanaam dañ koo njabar ah ku def loola mu ne malaaka mi ci des ne ko ku ñuy wax labid ibnul asam muy ab yahud boo xam ne ca madina la nekkoon wala ku jaxasoog yahud ya la mu ne ko lu mu def mu ne ko ab jartu da la jël maanaam peñe yi ñu peñe karaw boole koog ay ay ay wëñ ak yëf laxas ca lam laxas ca la ko laxas malaaka may nett li morom ji de yonente bi alayhi salaatu wasalaam di déglu xadis baa ngi ci saxiixul saxiixayn mu ngi ci buxaari ak muslim mu ne ko laxas na loolee mu laxas ba noppi sànni ko ca biirub teen ba ñuy wax biiru zarwaan foofu la ko dugal mu ne ko ah lu ci pexe mu ne ah ñu ñaanal daal di jàng qul a'uuzu bi rabbil falaq ak qul a'uuzu bi rabbin naas yonente bi alayhi salaatu wasalaam jóge ca loola mel ne dara mosu ko gaar mu yónnee ca teen ba ñu dem xam ne loolaa nga ca biir ñu génne ko mu digle ne nañ ko suul donte nañ ko suul jooji am na boroomi xam-xam yoo xam ne dañ ne njabar ga la wax ne nañ ko suul fi béréb am ñoo xam ne dañ ne teen ba la ne nañ ko suul waaye li gën a wér mooy njabar ga lañ suul waaye du teen ba kon alayhi salaatu wasalaam ci yaramam lu mel noonu gaar na ko kon loolu dañuy fedd lil lii mu allif bi wax ne wa sixru xaqun wa lahu tasiru wa sixru njabar xaqun lu am la wa lahu te ñeel na ko tasiru jeexit kon am na jeexit waaye nag ndax lu tax mu allif bi di jóg di wax ne lu am la te daanaka nit ñëpp xam nañ ne lu am la moo di dafa am boroomi gëstukat yoo ay gëstukat yoo xam ne dañoo weddi njabar dañ ne amut muy kuréel bi ñu tudde al-mu'tazila nga xam ne lépp lu génn daanaka xelum doomu aadama lu mënta étudier rek teg ko ci place al-mu'tazila dañuy weddi loolu moo tax li ñu tudde karamatul awliya muy borom bi tabaraka wa taala yi muy terale wàll yi ñi mën a wone yoo xam ne yu jaaxal nit ñi la wala mu dawale ci seen seeni loxo loo xam ne lu jaaxal ñeneen ñi la muy luy xotti baax wala mu'jizatul anbiya wala xeetu njabar wala shafaa ay ràmm lépp loo xam ne seenum xel nanguwu ko ñoom al-mu'tazila dañ koo weddi bokk na ci yooyu mooy njabar dañ ne xel nanguwu ko lànk kon nag pour weddi loola moo tax mu allif bi mu wone ne njabar day lu am la te it lu am jeexit la waaye nag jeexit woowu it ñu xam ne nag du caagi ni jabar bi daa doon borom man-man boo xam ne lu ko neex rek nag def du caagi ni lu ko neex rek def nag de mbir mi day fekk mu dajeeg dogalu sunu borom tabaraka wa taala moo tax mu ne laakin bima qaddarahu alqadiru laakin waaye bima ca la nga xam ne qaddarahu dogal na ko alqadiru aji dogal ja muy sunu borom tabaraka wa taala kon jeexiti njabar foofu lañ ko tënk mooy day dajeeg dogalu sunu borom tabaraka wa taala dogal boobu mu bëgg koo leeral mu ne ani bi da taqdiri ma qad qaddara fi lkawni la fi shiraati almutahara nee na ani li ma jublu bida taqdiri ci bii dogal dogal boobu yi ma wax ne njabar buy am day fekk borom bi dogal ko ne li ma jublu ci dogal boobu maa mooy li nga xam ne qad qaddarahu dogal na ko fil kawni maanaam ci bin ci ci mbindeef yi ci nature bi laa waxuma day fi shiraati ci sharia al mutahara bi buñ laabal borom bi tabaraka wa taala dafa am ñaari qada ak ñaari qadar qada wa qadar maanaam ab dogal boo xam ne kawni la ak dogal boo xam ne shar'i la ñaar yooyu lu leen tàqale dogal boo xam ne ci wàllu kawnu bi la kawnu buñ ko waxee mooy nature ak mbir yi niñ koy gisee nii amul menn mbir moo xam ne mu mën a am ci kaw suuf la lu dul dafa dëppoog ne sunu borom tabaraka wa taala moo bind loolee ba tax mu mën a am su fekkoon ne du kàttanu sunu borom tabaraka wa taala ak dogalam nit ñi duñ ak fañ jóge nuñ jékki-jékki ñëw dikk toog ci jotaay bi ci jàkka ji di déglu kooku dogal na ko fil kawn su dul woon dogal sunu borom tabaraka wa taala doo jël ak weñ teg ko nii sa kanam di wax muy jot li nit ñi di ko dégg waaye loolu dogal kaw nii la su dul woon dogal suñu borom tabaraka wa taala doo mën a jël ab appareil bu ndaw bu toll nii wax mu daal di jël li nga wax boo fi jógee mën a dem toogaat di ko déglu jiwaat dëgg la nit dana ci sabablu bu mën a defar lu mel noonu waaye nag day dëppoog dogalu sunu borom tabaraka wa taala am na ay xasaais muy ay jagle yu mu def ci yëf yi yoo xam ne soo boolee nangam ak nangam résultat ba nangam lay doon résultat ba nangam la lay jural loolu moom la ñu tuddee alxabaaul kawni même ki nga xam ne dafa dem di def lu bon di naan sàngara su borom bi tabaraka wa taala dogalul woon garab googee ñu liggéeyee sàngara bi sax kon sàngara du am bañ di ko naan loolu mooy alxabaaul kawni waaye ndax nag lépp lu borom bi tabaraka wa taala dogal ci kawnu bi rek day dëppoog sharia maanaam sharia da koy bëgg déedéet yu bari am nañ ci kawnu bi nga xam ne ci jàpp ndaluk sun borom tabaraka wa taala akub ci dogalam ci la amee waaye nag doonut lu mu bëgg loola moo tax mu di ko tere loolu la diine di jëriñ parce que dara day mën a am ba noppi ñu ne la bàyyi loolu nag di la seetlu ba xam da nga ko bàyyi am déet maanaam su andiwul woon sàngara indi mooy yàlla kon ñëpp dañuy daal di baax kenn du xàmmee ku nangoo topp ak ku nangu la topp waaye nag bu fekkee ne dafa dogal indi yi nga xam ne yu baax la dogal indi safaan ba ba noppi bind la nag jox lam xel ne la demal tànn la baax nga jëfandikoo ko te bàyyi la bon sànni la nag ci géew ba di la xool foofu la ñuy xamee nag ki topp diine ak ki ko toppul kon mbir yi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala daf koo dogal am na ci yoo xam ne dëpp ñaari dogal yépp daje nañ ci ñaari dogal yépp daje nañ ci suñ borom dogal na ko kaw nan dogal ko itam sharaan maanaam dogal na ko ba mu am ba noppi mu bëgg ko d'accord ci mu dëppoo ak sharia lu mel ne julli gi ngay julli yow yàlla moo dogal ngay julli ndax moo ko santaane moo ko amal moo la jox cër yoo xam ne jékki woo jekki rek mel ne poto bu ne jàdd waaye daf laa wutal loo xam ne bi mu ne laa rokkool sa sujjóot defar na la ba nga doon ku mën a koo mën a sujjóot noonu la la bindee say cër nangu na sujjóot kon moo ko moo ko dogal kaw nan maanaam ci nim la bindee waaye it nag bëgg na ko shar'an ndax moo la ko sant kon ñaari dogal yépp daje nañ ci julli ji ngay julli waaye ki nga xam ne dafa dem di naan sàngara kooka ban dogal moo am foofa dogalu kaw na bi rek moo fa am mooy tëriinu àdduna bi ni mu tëbde moom la dëppool ba dem def loolu waaye ndax dëppoon ak dogalu sharia bi mooy suñu borom bëgg ko tànn ko déedéet dañuy wax tànn ko kon foofa dogalu kawnu bi képp moo fa ne waaye dogalu sharia bi nekku fi boobu nag mooy dëppoo bii nu tiim nii jabar bii jabar la muy def mu am jeexit mu mën caa lor doomu aadama loole sunu borom tabaraka wa taala moo ko dogal ci kawnu bi mu doon loo xam ne lu mën a nekk la moo tax mu nekk waaye nag doonut lu mu tànn nekkul loo xam ne lu mu bëgg la ñàkk gee nekk lu mu bëgg loola moo tax mu xaraamal ko ci sharia ndax loolu leer na alhamdulillah kon moo tax mu ne laakin bima qaddarahu alqadiru maanaam njabar am na am na jeexit itam lu lu wér ne am na la lu am ay jeexit la itam mu ne waaye jeexit yooyu ci kaw yàlla dogal ko mu ne li ma jubal li ma jublu ci dogal boobu nag mooy lim dogal ci kaw nu bi muy nature bi nga xam ne dafa dogal mu mën a nekk moo tax mu nekk waaye nag dogalu ko ci sharia bi maanaam ci kaw mu doon lu war a nekk maanaam doonu loo xam da ko tànn bëgg ko ne na nekk santaane ko déedéet santaane wu waaye nit ka da koy def ngir bëtt ndigalam moo tax mu ne ah nii li ma jublu bi da taqdiri ci bi la dogal maa mooy li nga xam ne qad qaddara dogal na ko fil kawni ci nature bi ci dund gi laa déet fi sharaati ci sharia al mutahara bi di buñ laabal kon loolu mooy tomb bu njëkk bi ndax mooy tontu laajub ndax njabar lu am la wala lu amut la kon lu am la dalil yi koy tegtale bari na lool tudd nañ ci yenn luy atteb jabar bi nag nee na waxkum ala saaxiri bi takfiiri waxkum ala saaxiri bi takfiiri waxkum atteel juseel ala saaxiri ci jabar ba bi takfiiri ci yéefarloo ko jabar ba yéefar la kooku bu ci am sax déng-déng jabar yu bare bari mooy wone ne yéefar la aayab téeméer ak ñaar ci suratul baqara mooy wone dëgg-dëggi njabar borom bi tabaraka wa taala foofu la joxe dalil yu bari yoo xam ne dañuy wone ne jëmmi ak njabar ci boppam kéefar la foofee muy waxe ne wattabau ma tatlu shayaatinu ala mulki suleyman wama kafara suleymaanu walakin ash-shayaatiina kafaru aaya joojee fa la borom bi tabaraka wa taala leerale mbiri njabar suleymaan alayhi salaam da doon yonentub yàlla boo xam ne borom bi tabaraka wa taala daf ko mayoon may yu kéemaane yu fés def ci moom yu bare bari yoo xam ne defu ko ci ñeneen yooyu bokk na ci tàggatal ko jinne yépp mu di leen liggéeyloo ñuy xëy di liggéey ci ndigalam di leen digal ñuy def di leen tere ñuy bàyyi te sañu ñoo bañ tàggatal ko ngelaw li su bëggee war ngelaw tuxoo fi dem fële daal di war ngelaw dem tàggatal ko picc yi ba mu xam li ñuy wax di dégg seeni làkk yooyu du mbir yu ndaw ay mbir yu doy doy waar nag ku yu ko yàlla jox moom yonent yàlla suleymaan waaye nag yooyu yëpp it borom bi tabaraka wa taala Suleymaan jaamu bi yàlla la boo xam ne dafa ñaan yàlla yooyu mu may ko rabbi habli mulkan laa yanbaghi li ahadin min ba'di yàlla maa ngi la ñaan nguur goo xam ne keneen du ko am sama gannaaw yàlla may ko booleel ko it al mulk wa nubuwa mu nekk buur nekk itam ab yonent ñu bari nag man mani Suleymaan yooyu nga xam ne yëpp ay xarbaax la maanaam yu doomu aadama mënut woon la yàlla jox ko ko dafa tax seytaane ya ak ñi gën a siiw ci njabar muy siif ya xeetu njabar yi ñu créé yëpp dañ doon wax ne ci Suleymaan la jóge ba léegi sax ñi liggéey ci wàllu njabar ak xarga foofa da ngay dégg ñu naan xaatamu Suleymaan di ko wax ñenn ñi dafa ay xaatim daal di ne lii mooy xaatimu Suleymaan Suleymaan amul woonub xaatim kon ñu bare bari di ko askane loola moo tax borom bi tabaraka wa taala setal ko setal ko ci loolu léegi ñooña luñ doon def suñ indee seenu njabar suñ ne ah waaw lii lu mu doon gi njabar fu mu jóge ñu ne ah noonu kat lii ci Suleymaan lan ko jële borom bi tabaraka wa taala nettali loolu mu ne wattabaxu topp nañ maa tatlu shayaatinu ala mulki suleyman ala mulki suleyman mooy fii mulki suleyman li nga xam ne seytaane ya dañ ko daan jël di ko jàngat ci seen diggante ci jamono bi fa Suleymaan nekkee loola lañ donnante borom bi tabaraka wa taala seetal Suleymaan ci njabar googu mu ne leen wama kafar Suleymaan Suleymaan du yéefar walakinna shayatina kafaru loolu rek doy na ngir ñu xam ne njabar kéefar la ndax ñi dañoo taxaw ne noonu kat njabar gi ñu yor ci Suleymaan lañ ko jëlee yàlla na leen déedéet Suleymaan doonul woon ab yéefar waaye seytaan yi ci boppam mooy yéefar ndax dégg ngeen wax bi bu baax kon loolu fésal na ne njabar ci boppam kéefar la mu ne walakin shayatina kafaru yuallimuuna annaasa sixra seytaane yooyu dañ doon jàngal nit ñi njabar kon loolu ci sabab yi seen kéefar loolu ci la bokk wa ma unzila ala almalakayni bi baabila haaruta wa maaruut haarut wa maarut wax yi bari na ci lool waaye ñaari malaaka la yoo xam ne borom bi tabaraka wa taala daf leen a yebaloon ngir di nattu doomu aadama yi kan moo ciy gëm ak kan moo ciy weddi kan moo ciy gëm ak kan moo ciy weddi jox leen ay pexe ak i man-man yoo xam ne xeeti njabar la dañuy ñëw toog ne kaay leen nu jàngal leen waaye kéefar la nag mu leer naa ñu di ko dégg soo ñëwee ne ah man de xam naa ne kéefar la waaye damaa bëgg a jàng ñu ne ah defal attention bul weddi bul weddi yàlla soo ne bëgg naa ñu jàngal su ko defee yow booba natt moom tàbbi nga ca ca musiba ma moom la borom bi nettali wa ma yuallimaani min ahadin xatta yaquula innama nahnu fitnatun fala takfur duñ jàngal kenn lu dul gannaaw boo xamee ne wax nañ ko ne ko nun ñi ab nattu lan ab nattu lan ci yéen fala takfur bul weddi yàlla kon leer na ñoom wax dëgg yàlla ku bëggoon a mucc war a mën a mucc ci ñoom ndax ab nattu maanaam ab concours dañ daan nëbb yëf ya loxos ko boo dikkee ba dugg ci biir ñu xam ne yow tàbbi nga juum nga jeex na waaye ku toog nga ñëw ne damay jàng mu ne la kéefër la nga ne jàngal ma mun la te ngaa bañ a weddi yàlla nun ab nattu rek lan de dem leen di examen ba xam da ngeen di gëm yàlla am da ngeen di weddi nga féeteelu ne jàngal ma wax dëgg yàlla moo dugal boppam ci kéefër waaye liy dalil bi foofu liñ soxla foofu mooy wax googu yi ñu doon wax ne innama nahnu fitnatun fala takfur liñ leen doon jàngal lu mu doon jabar boo dikkee luñ lay wax bul weddi yàlla kon dalay won ne kii jàng njabar kon weddi na yàlla kon beneen dalil la ngoog bi won ne njabar ci boppam kiifar la lu ca borom bi teg nee na fa yataallamuuna minhuma maa yufari maa yufarriquuna bihi bayna albari wa zawji ci ñaar ñooñu lañ doon jàngee lu ñuy tàqalee nit ak jabaram jabar bokk na ci ay liggéeyam tàqale yu war a ànd wala boole yu war a tàqalikoo yooyu ci seen liggéey la bokk waaye borom bi nee na wa ma hum bi darrina bihi min ahadin illa bi idnillah loolu moom la jullit bi war a yóbbaale nee na mënuñoo lor kenn lu dul ci ndigal dogalu suñu borom borom bi moo koy dogal mu door laa dal waaye su dul loolu duñ la mën a lor su borom bi tabaraka wa taala dogalee ci yow nga bokk ci ñii góorgóorlu di jàng alquran di jàng muslaay yi nekk ci biir alquran ayatul kursi moo ne ca bopp ba aaya bi gën ci alquran ci làmmiñu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di jàng alfatiha di jàng qul audu bi rabbil falaq ak qul audu bi rabbin nas qul huwa allahu ahad di jàng suratul baqara ak ali imran yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na wa ma yutiquhuma albatala maanaam jabar seytaane yi gën a réy ëpp kattan nee na attanuñ yooyu yaari saar kon yow mi jullit bi nga xam ne da nga saxoo di def loolu na sa njort rafet ci ne jabar mëna loolu dara ak fu mën a jaar mën a lu la dara borom bi tabaraka wa taala moo lay aar c'est-à-dire nag ku won gannaaw diine suñu borom tabaraka wa taala won gannaaw alquran won gannaaw zikkar yi jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàpp nag ci yeneen yoo xam ne nit ñee ko fental seen bopp te amul benn efficacité kooku moom lu la dal yaa ko teg sa bopp mi ngi mel ne mënees na koo def misaal te misaal mi sax aggut ci ci ndi lii demee dëgg-dëgg docteur ba jàng ba yorub xam-xamam di faj feebar daal la boo xam ne docteur dong nga ko mën a faj nga bàyyi ko fa dem ca ay xarga fuufa ak yëf yëfaan yu mel noonu loola ca dale yaa ko teg sa bopp waaye borom bi tabaraka wa taala ginnaaw dafa wàcc alquranam lépp nekk ci biir luy faj doomu aadama ak lu koy aar ak lépp nekk ci biir nga bàyyi ko di jël ay ci karaki awraad ak yu kenn xamut yoo xam ne doomu aadama yi ñoo ko ñoo góorgóorlu seen bopp amal ko nga tàbbi ci biddaa loolu doyatut nga nga won alquran ak sunna foofu gannaaw kooka loola dal yaa ko teg sa bopp waaye nag mu doon lu mat a bàyyi xel foofu muy jamono yi ngay jàng alquran ngir jaamu yàlla gëmal ne da nga koy jàng ngir jaamu yàlla loolu mooy pas-pas bi jiitu mooy yéene ji waaye aaru dong kat bu mu la booleeg alquran nga def ko téereb léemaay wattul loolu soo ko defee seytaane dana la gañe ci geneen wet ndax yaa ngi liggéey pour aar saw yaram waaye xalaatoo ci sa diine yool bu rëy ba lay xaar nag bu ëllëgee te loola ab solo kat kon sa yéene na doon jaamu yàlla ci jàng alquran ak la ca ne ci ay aaya yu baax ak ay saar ak yu mel noonu yéene ja rafet nga am tuyaaba alquran aaraale la ci kàttanu sun borom tabaraka wa taala kooku lu mat a bàyyi xel la borom bi ne wa maa hum bi daariina bihi min ahadin illa bi idnillah su ko borom bi tabaraka wa taala dogalut mën a luñ la dara te soo jàppee ci yim la sant insha allah duñ la mënal mënal dara borom bi nee na wa yataallamuuna maa yaduruhum wala yanfauhum li lépp ci njabar la ñi ngi jàng loo xam ne ñi ngi xamlu loo xam ne da leen di lor te du leen jariñ jabar bi li muy jàng di ko xamlu ci njabar na xam ne lu koy lor la waaye du ko jariñ su fekkoon ne amal na ko njariñul àdduna sax lam koy loral ëllëg lam koy andil ëllëg moo yées ndax wallahi mbokki jullit yi nit ki suñ ko joxoon àdduna ak li ci biiram ci ay moomeeli àdduna ak i alal te àllaaxiraam yàqu kooku alku na àdduna ak li ci biiram jaru jarul dara yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na àdduna ak li ci biiram su toll woon fa yàlla ne benn laafu yoo laafum yoo su fekkoon ne yàlla àdduna ak li ci biiram réye na ne laafu yoo nee na kon ab yéefar du ko fi jox benn guuxu ndox mu di ko naan waaye àdduna ak li ci biiram du dara fa yàlla kon nag àdduna ak li ci biiram su taxee nit ki waru ba dara ci diineem yàqu ëllëg mu faatu ñu rob ko jébbal ko boroomam fekk lam doon fekki lépp yàqu na kooku wala yaatu billaahi alku na kon wa yataallamuuna maa yaduruhum wala yanfauhum ñiy jàng loo xam ne da leen di lor ba faw te amalu leen benn njariñ kooku alkande la jullit bi war na koo daw war na ko wattu mu ne wa laqad alimu laman ishtaraahu maa lahu fi l axirati min xalaaq kooku ci wane ne njabar kéefër la ci la bokkati nee na wa laqad alimu ñoom ñii di jàng njabar gi ak di ko jëfe xam nañ ne alaaxira amuñu fa cër amuñu fa benn cër maa lahum fi alaaxirati min xalaaq loolu naf yi la boole koog nakkira kooku day wane ni amuñu dara dara dara fa alaaxira alaaxira ka fa amul dara dara dara ku mu yéefar yéefar yéefar ku faatu ku nekk te yóbbaale woo kéefar alaaxira da nga fa am dara nit ki mën naa faatu yóbbaale bakkaar bu nekk ci kaw suuf waaye yóbbaale tawxiid mën naa demit nag ñu mbugal ko dugal ko sawar waaye sawar wooyu lu mu yàgg-yàgg ak lu mu metti metti ginnaaw yóbbaale woon na tawxiid dana mas a génn dem tàbbi ji àjjana ndax tawxiid bi mu yóbbaale kon kooku am na foofu cër wala déet ki fa amul benn benn cër kon mooy ki yóbbaale wu tawxiid kéefër la yóbbaale kon njabar borom bi nee na wa laqad alimu xam nañ laman ishtaraahu ne képp koo xam ne sàkku nga ko jënd ko am ko moom njabar maa lahu ñeelu ko maanaam du am fi l axirati ca àlaxira min xalaaq ci benn cër amu fa dara yàlla na yàlla mosal ci loolu kon aaya boobu làmboo na dalil yu bari yoo xam ne daf nuy won ne njabar ci boppam kéefar la loolu moo tax muallif bi fii mu ne nu waxkum ala saaxiri bi takfiiri am na yeneen dalil yu bari waaye aaya boobu mooy bi ci gën a siiw wa xadduhu alqatlu bila nakiiri kon ginnaaw bu mu la waxee atte bi mu di ab jabar ab yéefar la ab njabar ab jabar ab yéefar la jabar nag buñ ko waxee mooy ki nga xam ne bokk na ci màndargaam mooy day jéem a xam lu lu dikkagut wala lu mu fekkewut te kenn waxu ko sa jur réer na sa oto réer na sa bagage réer na nga ñëw mu ne la bagage bi ma nga bérëb sàngam wala dana feeñ wala du feeñ kooku ma ngay xam loo xam ne kumpa la kooku jabar la ak moyen bu mu mën di jëfandikoo nag ah xanaa su dul moyen ndeyi sàcc kooku moom du jabar di xam ngeen ndeyi sàcc fonkalum bandi lay doon moo xam ne yeneen i bandee nekk ci suufam di sàcc lu réer lu ne wala luñ sàcc lu nekk xam na fa mu nekk léeg-léeg nga dégg ku la ne boo ma joxee dara mën naa la caa jox loo xam ne du dañ fekk doo xamoo ban moyen lay jëfandikoo léegi li nga dégg ku ñuy wax ne daal moom loo loo réer le bu ngeen waxee ba juboo daal boo ko joxee li nga koy jox dana la wax fa mu nekk ñu bari nag nañ koy déggee dañ naan ab xamkat la waaye fekk mën naa bañ a doon ab xamkat mën naa nekk ndeyu sàcc koo xam ne ñay sàcc la ñuy sàcc xam na fañ ko denc xam na it na ngay def ba jot ca soo leen joxee la nga xam ne moom lañ bëgg ñu ne la boo demee béréb sàngam fekk ko fa bu dee lu ñuy yeewi wala lu ñu fay teg waxtu sàngam boo dikkee fekk ko fa su ko defee ñu ne kii moo fi ëpp xam-xam ku mel noonu moom ab kàccoor la mooy katub yàlla la waaye nag duñu wax ne bi yéefar la waaye su fekkee kuy defi xar ga fuufaam la moo xam day tomb wala day gisaane wala dafa yor pettaaw di sànni wala dafa yor téere di da naan la tegal fii dërëm bi nga teg mu xool xaatim ba wax la ñooñu ñooy jabar ya kay jiim a xam lu mu fekkiwut wala gisu ko muy kumpa kooku moom kooku mooy màndarga mi gën a fés ci ne kooku jabar la na nga ko daw ni ngay dawee gaynde kooku nag am atteem bu fekkee sharia moo taxaw moom lañ bëgg a xam bu fekkee sharia taxaw la jiitu mooy ab atte bi yéefar lañ koy atte ñu xam ne rek atte ci wàllu kéefar nag sharia moo koy def maanaam jugement lay doon yow jullit bi gis waa ji mu wóor la ne kii ab jabar la boo xam ne na table woon njabar lay def waxuma de man kataba boo xam ne day toog rek di bind ay ay alxuraan ak bu ngeen tey ñëwee mu bindal nit ñi nangam nangam kooku moom ci ay biddaa la nekk ak yu xóot waaye li feeg boolewu ca nag di jéem a xam lu dikk a gut kooku mën naa bañ a àgg ci njabar donte la muy def nag baaxul waaye yow mi dem ba am yaqiin ci ni kii moom li muy jëfandikoo njabar la yow jullit bi sàkkuwuñ ci yow nga jóg ca mbooloo ma ne leen diw sangam ab yéefar la waaye yow ci sa jëmmi bopp sa digganteeg sa diine na nga ko atte atte bi yéefar jëflanteeg moom na ngay jëflanteeg bi yéefar soo fekkoon muy julli bul julli ci gannaaw lépp loo xam ne diisu ko defakub yéefar bul ko def ak moom bu dee jëflante ci wàllu àdduna nag jullit bi dana jëflanteekub yéefar ci wàllu àdduna yahud yeeg nasaraan yeeg jullit yi ñëpp dañuy jëflante ci jaayanteeg jëndanteeg mayanteeg yooyu yëpp mën dafaa dox waaye lu laal diine bul ko ca boole laaj na nag moom moomee nekk ci kéefar gi ñu bañ ko bàyyi noona jéem koo yëgal ne li mu nekk kéefar la ak moyen buñ mën a jëfandikoo ngir laaye ko biir ndax yàlla baaxe ko mu génn ci kéefar dugg ci loo xam ne lu am njëriñ la te bañ a lor boppam bañ a lor société bi nga xam ne moom lay dundal ndax ñoom seen lor ci société jéggi na dayo li ñuy jaxase ci ay nit ñoo xam ne ñu àndoon la ñu rambaaje seen diggante bañ bàyyante li ñuy tiitloo ci ay doomu aadama yoo xam ne dikk fi ñoom ñu ne la nangamal a gaar yoo xam ne kenn mënu koo dindi lu dul nangam nangam jox la charte yoo xam ne attanoo ko nit ko feebaram yokk bu dee ko yor tension mu gën a jëm kaw li ñuy lor ci wet googu kenn xamul lu mu toll am naa li ñuy lor nag ci tàyyelloo nit ñi nag ak paralyser société bi loolu moom kenn xamul nu mu toll économie bi ci boppam dañ koy baare ndax yow ma yoroon sa société di liggéey sa gestion baaxul wala ña nga jëloon di leen empl di leen liggéeyloo amuñu solo perte dikk nga dem ca kenn ci ñoom mu ne la nangam ak nangam ngay joxe la nga defe woon a ko su néew nga jox ko ko faf kooka su fekkoon ne loola nit la ku ànd akum xelam lam doon liggéey gis liggéey bi dellu gannaaw day dil siwaat gannaaw xool moom ndax mbiram mii nii mu koy doxale nii la ñii mu jël jox leen liggéeyam bi ñuy liggéey ndax ñi ngi def li leen war ndax taxawe na li ko war ndax contrôle bi jaadu mi ngi koy def ndax yoon wi mu jaar ak moyens yi muy utiliser mooy yi gën côté yooyu la waroon a xool waaye yooyu yëpp dañ ko fay bàyyi ne ah boo demee ca kooka de moom am na lu mu lay defal rek su commerce lay daal di baax su ko defee nga dem ca kooka nit ñi paralysé wu ñay sàcc di sàcc ñay jaxase di jaxase am ñoo xam ne dañ ne la boo yanoo kees gi it boo demee ca moom dana la defal loo xam ne kenn du la jàpp duñ la tëj léeg-léeg nga dégg fi kuy publicité di wax ne numéro mi nga béréb sàngam ak nangam li ma lim ya ñuy def ba ne la soo amee problème ak yoon sax boo dikkee nangam nangam loolu su fekkee wér na kooku kay fa muy liggéeyee bu ragalut yàlla day yanu kees ga yóbbu xaalis ba def def ci kontam su amee problème ak yoon ñëw ca kooka mu defal ko loola su lam dee wax doonee dëgg ñu bàyyi ko mu dem yoonam kon ñoom seen lor ci ci biir société bi ak ci diine ji dafa doon lor joo xam ne ci jéggi dayoo la yooyu yëpp jaadu na laaye biir kañ gis muy yëngu ci lu nuru loola ndax mu sori ko yëgal ko ne ko su ko soriwut kéefar la koy jural moo tax sharia ab géttanam sanction bi muy teg ab jabar mooy rey ko moo tax mu ne wa xadduhu ab géttanam alqatlu mooy rey bila nakiiri nee na loolu kenn weddiwu ko wa xadduhu ab géttanam alqatlu mooy rey ga bila nakiiri loolu kenn weddiwu ko kama ata fi sunnati almusarraxa mimma rawahu altirmidi wa saxaxa عن جندب وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر am na yeneen nusxa yoo xam ne ata an umari ruwi wala ata li ci nekk am na nee na kama ata nekk mu dikkee maanaam dafa wax ne ab jabar dañ koy rey dalil bala la bëgg a wax mu ne la kama ata nekk mu dikke fi sunnati l musarraxa ci sunna su leer sax sunna su leer moo ñu jàngal ne ab jabar dañ koy rey mimma ca la nga xam ne rawaahu nettali na ko at-tirmidi muhammad ibn isa at-tirmidi mooy boroom téere bi ñuy wax aljaami wala sunan wa saxaxahu te wéral na ko an jundub jële ko ci jundub ibni abdillahi albajali kenn ci saxaaba yi radiallahu taala anhu jundub daf ne jële na ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu ne xaddu saaxiri darbatun bisayfi xaddu saaxiri gétanub jabar darbatun mooy dóor bisayfi ci jaasi am na beneen boo xam ne darbuhu la wax mooy dóor ko bisayfi ci jaasi kon gétanam moom mooy rey ko wa hakada fi asar yi dikk na itam ci benn asar muy benn nettali amrun ndigal bi qatlihim ci rey leen ruwiya nettali nañ ko an Umar yi jële ko ci Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Khattab dafa toog ba jëmmi jamono ci jamonoom lislaam ubbiku na tasaaroo na nit ñi dugg si nañ seen i aadaak seen i cosaan ña yoroon ay xarga kuufa ak ñëpp dugg si Omar yëg ne ay jabar a ngi tàmbali di am ci société islamique bi te mooy njiitul jullit yi ci kaw suuf mu bind benn décret ab taamim yebal ko ci mboolem région yi ne uqtulu kulla saaxirin wa saaxira loolu moo doon décret Omar ibn Xataab ci jabar yi fu gouverneur nekk mu yónnee ko leetar ne ko fu ngeen fu jàppee jabar bu góor wala bu jigéen rey leen ko uqtulu rey leen kulla saaxirin wa saaxiratin bépp jabar bu góor ak bu jigéen fu ngeen leen fekk rey leen bajaal ibn abda mi nettali xabaar bi nee na fa qatal na salaasa sawaaxir nee na fa mu ko fekkoon moom ba leetar ba agsee rek rey nañ foofa ca bis booba ñetti jabar yoo xam ne yu jigéen lañ yoo xam ne dañ leen fekk ñu jabar ñu rey leen kon defe naa ne décret bu mel noonu ci yii laabal société bi ci la bokk Omar ibn Khattab kon noonu la santaane woon ci ci ñooñu wa saxa an xafsata inda maliki maa fihi aqwa murshidin lissaliki wa saxa wér na it an xafsa jëlee ci xafsa xafsa mooy soxna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy doomi Omar ibn Alxataab radiallahu taala anhu kon soxna si yonente bi la doomi Omar la moom it wér na jóge ci moom inda maliki fa imam malik ci muwatta am ba net li gën a dëgër ci dalil li gën a dëgër ci dalil li saali ci ñeel képp ku sóobu yoonu gëstu xam-xam kon daal dalil ba gën a dëgër kuy sóobu yoonu gëstu xam-xamub nan lañ war a def ab jabar nee na al imaamu malik nett li na ab nett li bu jóge ci xafsa di soxna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di doomi Omar ibn al-Khattab radiallahu taala anhu lan la Xafsa wax dañu wax ne Xafsa dafa rey ab jaariya mu ndaw su nekkoon fi moom doonoon fa ab jaam mu def ak moom li ñu tudde mukaataba mukaataba mooy ndaw si xam ngeen ne bépp jaam bu mën a doon su bëggee libre sañ naa ñëw ca ka ko jëndoon ne ko léegi daal li ma bëgg mooy nga bàyyi ma ma dem liggéey fay la la nga ma jënde woon ma liibar loolu lislaam may na ko jaam bu nekk ci kaw suuf ndaw soosu loolu la waxoon Xafsa mu ne ko demal mu dem liggéey di ki jot boppam bi mu jotee boppam ba moom boppam liibar gis ne kër gi mu nekkoon këru sutura la fi moom mu ne ko damaa bëgg a continuer nekk fi di la jàppale ci liggéey bi di la def nangam ànd ak ne as gor la mu ne ko d'accord loolu wàññiwul dara ndeke ndaw si ab jabar la mu jabar nag Xafsa bi mu ko defee ak njabar nag ci la Xafsa santaane ne ah décret Omar ibn Xataab ba kat muy saa baay soriwu fi yarhamukallah daal di santaane ñu rey ko kon loolu la borom téere bi di junji foofu mu ne nettali boobu jóge ci Xafsa dalil bu wér a ngi fi boo xam ne leer na ci kanam képp benn bis alwalid ibnu uqba ci jamono jooju ab gouverneur la woon ci jamono osman ibnu affan radiallahu taala anhu caaxaan tàmbali na di bari omar ibnu xataab nekkatul ci kaw suuf xëy na nit ñi commencé nañ di foye luwaa yi benn jabar ñëw di fo ci kanam walid ibnu uqba yor jaaseem di corloose nit ñi kum corloosam bopp ba wadd tegu fële mu jëlaat bopp bi tegaat waaj a jóg di dem ñu ne subhanallah yuhyil mawta ma ngay dundal nag néew ya kenn ci muhaajiroon yi ca seen mag ña seetlu ko gis la muy def ak jeexit yi muy def ci pas-pasi nit ña mu dellu këram ci ëllëg sa mu sol mbubbam ràngoo jaafeem waaj a agsi walid woo ko mu ñëw commencé di def ya muy def kooko bocc jaaseem cor jabar bi bopp bi daanu fële mu ne yuhyi nafsahu in kaana saadiqan na dundal boppam su fekkee ne daa bari ay pexe dundalul boppam foofu la teggee alko ndax loolu mooy atte ba te xam na ne walid mii atte wowut liñ ko santoon wax nañ ne walid ibnu Uqba sax mer na ca loola ba borom xam-xam boobu mu jàpp ko tëj ko ay fan waaye bi mu xalaatee diisoo ak mag ñi ñu génne loo ko ko mu génnewaat ko xamal ko ne ko loolu mooy àtte bi yàlla ci mbir mi mu daal di génne kilifa googe bàyyi ko mu dem yoonam kon jëm mi njabar ci boppam moom lislaam kay xanaa fu mu taxawut waaye société boo xam lislaam moo fa taxaw di gouverner moom jabar moom amu fa place benn mu ne nocc tuub del si ànd ci jullit yi doon ab jullit di def la jullit yi def su bëggee alal mu dem fàggu ji ko bañ a toroxal boppam fii ci àdduna toroxal boppam ëllëg ndax loolu borom bi tabaraka wa taala wax kat ne yataallamuuna wa yataallamuuna maa yadurruhum wala yanfaauhum dañuy jàng lu leen di lor te du leen jëriñ néew na nga gis ci sax nag koo xam ne ci àddunaam sax baax na faf néew na nga gis ci koo xam ne àddunaam baax na maa ngi fàttali ko suñu mel mbokk moo xam ne ku teeloon a yewwu ci mbir yi la am waa joo xam ne dafa ñëw ab jabar la la chaque lu nekk rek mu lim ko te yére yim solo ngi xotti ko xotti ko koo xam ne joxe nga nangam danaa la defal li nangam danañ defal nangam di lim nangam bu fekkee ne da ngaa bëgg a tukki Italie sax kenn du la wàññi bu fekkee da ngaa yor marchandise romb ay douane di wax di wax ba mu yàgg mbokk moomu ne ko waaw xanaa luy joxe yére yu baax newu ci xanaa luy joxe yére yu baax moom nekku ci ne kon wax dëgg yàlla nga tàmbalee ci sa bopp sagar yi nga sol taxaw di wax yii ngay lim bu fekkee mën nga ko wutala sa bopp yére loolu moo gën a ñëw yu ci bari nag dañuy nax nit ñi rek yu mat a bàyyi xel la bi ci tegu nee na hada mi wa min anwaihi wa shu'abih ilmu nujumi fadli hada wantabih nee na hada noonu la mbir mi demee wa min anwaihi bokk na ci xeetam ya nag xeeti njabar wa shuabi ak xaajam ya bokk na ci xeet ya ak xaaj ya ilmu nujumi xam-xamu biddiw fadri xamal hada lii wantabih te nga yeewu xam-xamu biddiw dafa am ñaari façon benn bi dafa dagan ci sharia bi ci des daganut ci sharia bi dagan ci sharia mooy jëfandikoo ko màndarga moo xam ne da nga ciy tegtaloo tegtaloo xam xibla tegtaloo xam fu waxtu wi toll jamono ji am na ci mag ñi ñoo xam ne bu ñu xoolee biddiw yi xam ceebo yi waxtu taw sore soreeti naag soreetul ak yu mel noonu ñu mën a dem ruuji mën a dem bay bokk na ci li ñuy tuddee li nga xam ne waa météo moom la ñuy def ci fànn googu lay tudd dajale ay calcul nag xool a xool ci asamaan seeg jaww jeeg yu mel noonu ba génne ay résultats yoo xam ne amaana lu mel noonu mën naa am bu dee taw ñu jàpp ne mën naa war naa mën a am ndax gis nañ ne nangam ak nangam niir sàngam mi ngi jóge béréb sàngam di ñëw beneen a ngi jóge fële bii dafa sedd bii dafa tàng te war nañoo mën a daje béréb sàngam suñu fa dajee mën naa jur ab taw ñoom kat loolu mooy seen calcul doonut nag lu wér cent pour cent ndax niir wëñ doon wax ne daa war a daje fële ngelaw mën naa ñëw wëññi ko mu faf jëm feneen wa ca des jëm fa ca des su ko defee daje gañ doon wax du am far lañ doon séentu du am léeg-léeg niir wuñ bàyyiwul woon xel jóge feneen wàññi ko ñëw béréb bañ doon wax ne fii dafa naroon a tàng tey faf mu sedd wala dafa naroon sedd faf mu tàng kon yi ñuy def ñoom dañuy nattale ñoom itam kon tegtaloo ci biddiw yi ak ni jamono ji doxe ci wàllu niir yi ak yu nu roog yooyu tegtalu ci pour man cee xame ay xam-xam yoo xam ne yu ñuy néggandiku la kooku doonut loo xam ne moom luy wàññi dara la waaye nag li li xaraam te du dagan mooy li jabar yi def di calcul nag nga xam ne dañuy jàpp ne biddiw yi ci seen jëmmi bopp am na ay jeexit yuñ yor ñoom yoo xam ne ci kaw suuf si la boo demee ci jabar yi dëgg-dëgg nga xam ne dañuy jëfandikoo wàllu biddiw ñaari mbir la ñuy jëfandikoo biddiw bi bu ci nekk dañ ko wutal aw tur wutal ko ay calcul yoo xam ne yu aju ca biddiw booba la wutal ko ay njariñ yoo xam ne moom lay jariñ fii ci suuf ak ay lor yoo xam ne suñ ko merloo mën na koo lor fii ci suuf ak ay sabab yoo xam ne moo koy bégloo ak yu koy merloo kon ñooñu dañu jàpp ne biddiw bi ci boppam kuy dund la koo xam day def lu ko neex kooku moom la chaque ne bokkaale bu mag la njabar la itam beneen façon bi ci des mooy jàpp ne biddiw yi ci boppam ak niñ séddalikoo dañoo am benn bu ci ne jamonoom boo xam ne li tàmbalee weer sàngam ba weer sàngam biddiw sàngam a ko moom boobu ku fa juddu ci diggante boobu yow say qualité ak say melokaan day jël qualité biddiw boobee kuy naqari deret ngay doon kuy mel nii ngay doon wërsëg mën na laa yomb wala mën na laa jafe mën ngaa def ni mën ngaa def nangam ñu ci tegtaloo loolu bu dee da ngeen di déglu ci rajo yi da ngeen di dégg léegi dem na ba horoscope lañ koy tuddee dem nañ ba dañ naan la ku judd ci weer sàngam ba weer sàngam mbiram nii lay demee nii lay demee nii lay demee loolu daganul dafa xaraam kooku ci xeeti njabar yi ci la bokk yi mat a daw te mat ko wattandiku ci bépp jullit yooyu ci la bokk boobu nag moo tax mu allif bi di wax borom téere bi boobu lay wax boobu lay wax ne bokk na ci xaaji njabar waaye jubluwut yi nga xam ne ay calcul ci nattale kese rek moo ko indi ci kaw mu def nag njabar gi wala iyaasu billahi kum dal noo koy dindee foofu boroom xam-xam yi dañ fee teg benn masala ndax dagan na nit ki njabar dal na ko ñu dem ci jabar ne ko kaay dindi njabar gi diw sangam def diw ndax dagan na wala déet mu ne wa xalluhu bilwaxyi nassan yushrau amma bi sixrin mislihi fa yumnau wa xalluhu kekki ko fecci ko tas ko toj ko maanaam toj njabar gi bilwaxyi ci waxyu muy alquran ak sunna nafsan ci textu alquran wala textu sunna kooku yushrau santaane nañ ko ci nga xam ne njabar dal na ko ñi tekkee njabar googu ñi tas ko te sukkandiku ci alquran ak sunna loolu sharia mayee na ko jàngal xunuusu rabbil falaq jàngal xunuusu rabbin naas amal yaqin ci ne da koy dindi insha allah mu dañ mu ne amma bi sixrin ndaal nag ak njabar mislihi gu mel ne moom maanaam ak njabar nga ne nañ ko dindee ak njabar nee na fa yumnau loolu dañ koy tere njabar kenn du ko dindee njabar dañ lay wax sax ne ñi xóot ca mbir ma dëgg dëgg dañ lay wax ne njabar mënta dindi njabar lu dul waaj a ko defoon ci boppam moo koy dindi ndax luxus la kenn ku ci ne am na luxusam yu mu def yoo xam ne moo xam na mu koy dindee kon beneenu jabar mënta jóge fële di dindi njabar goo xam ne beneenu jabar a koy def loolu ñuy wax naan la lu loxo def loxo mën na ko ni di demewul noona jabar boobee ci boppam moo ko mën a dindi waaye nag ñu xam ne alxuraan ak sunna ci boppam mën na ko dindi moom loolu na ci jullit bi am yàqin te it yàqin jëm déparé woon mooy su ko borom bi dogalut koo ko mën a lu ko dara kon bu fekkee ne alxuraan ak sunna la koy dindee dagan na bu dee leneen la koy dindee xaraam na daganut boo demee ci tafsiru aaya boobu ma doon tudd léegi ibnu kathir bi mu koy firi wattabaau ma tatlu shayaatinu ala mulki suleyman firi na ko ci anam yu leer nañ yoo xam ne yu am njariñ la waaye tontu na ci it boroomu xam-xam bu ñuy wax faxruddin arrazi muy boroom téereb tafsir bu mag ak tafsirul kabir moom ba muy firi aaya boobee moom Raazi te moo jiitu ca mag ña la digganteem ak Ibnu Kathir sore nañ moom daf caa wax ne nit ki dagan na mu jàng ak njabar jullit bi te fekk yéene ja tax mu di ko jàng mooy su gisee kuñ jabar mu dindi ko noona la jëte moom waaye Ibnu Kathir ba mu dikkee tontu xam-xam la ko tontu yoo xam ne daf ne ko borom bi tabaraka wa taala kéefër gi mu wax ne jabar yéefër la sartu ñu ci moom ne day jëfe njabar gi sax bu ko jàngoon képp dem toog ci néegam it yéefër la waaw borom bi waxut fenn ne ki ko jàng ci boppam teyam teyam ci njàng ma rek wàññiwu ko dara waaye jàng gi ci boppam rek kéefër la ko loolu moo taxoon malaayika yi boo ñëwee di jàng lu ñu lay wax falaa takfur innama nahnu fitnatun falaa takfur te ñooñ dañ doon jàng te rek di jëfee guñ ko malaaka ba ne la bul jàng parce que boo ko jàngee kéefër la de kon kéefër ga sart ñu ci ne da koy jëfe ak du ko jëfe loolu mooy li gën a dëgër loolu lu mat a bàyyi xel la foofu mu ne wa man yusaddiq kaahinan faqad kafar bima ata bihi rasulu almuctabar mu def nag ki nga xam ne moom jabarul jàngul ak njabar waaye mooy ñi des ci société bi nag te yaakaar ñooñu wala ñu gëm leen maanaam ñooy client yi ñooy client yi nga xam ne suñ fi nekkul woon ñoom njabar ci boppam day fay maanaam jabar bi li ko gënoon a mën a xeex mooy client bañ a amati jullit yi seeni pas-pas baax ba bu xëyee luy xar nga fuufam bari bari du gis kenn su ko defee bu ne tuuti rek gisul dara lee mu bayi wala mu dem seeti leneen nee na waman yusaddiq ku dëggal maanaam ku gëm kaahinan ab jabar kaahin nag buñ ko waxee mooy kay jéem a xam la nëbbu faqad kafar faqad kafar weddi na bi ma ca la nga xam ne ataa dikk na bihi ci moom arrasul yonent ba almuctabar ki nga xam ne mooy yonent ba wéex kañ jàppeeb yonent tam doon ko nee na daal képp koo xam ne dikke na jabar gëm ko weddi nga la yonent ba sallallahu alayhi wa sallam andi woon bayit woowu ab xadis la texte xadis la bu jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam alayhi salaatu wasalaam moo ne man ataa kaahinan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ku dikke ab jabar gëm lam lay wax nee na weddi nga diine ji ma indi man maanaam doon nga bu yéefar kon jabar moom danse bi jéggi na dayo li mu yàq bari na jëmmi waa ji ci boppam ab yéefar la ku ko gëm faf ab yéefar nga yàlla na yàlla musal ci njabar ak lépp lu ko jege fenn képp ku ko yàlla nattoo yàlla na yàlla musal ba nga génn ca tuub ko bala ngaa génn àdduna ndax boo ko yóbbaalee wala iyaatu billahi sawara nga jëm yàlla na yàlla musal ci loolu kon loolu ci ak gàttal mooy loo xam ne moo aju ci bunt boobu mu doon bunt boo xam ne bu rëy la bu am jeexit yu bare bari ci suñ société bii la yàlla ci yàlla musal bépp jullit di gën a dénk suñ bopp ak mbokki jullit yépp ñuy gën a fonk njàngum alquran ak aaru ci alquran gëm ne alquran téereb tuyaaba la téereb yool la téere buy fegal doomu aadama yi lépp li lor la wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad kon ñu déglu tuuti ci laaj yi insha allah su amee ñuy jël kàddu gi bismillah ustaas lay jox ko microphone bi ñu tàgg doxul de a waxal ko danaa baamtu laaj bi waxal danaa ko waxaat insha allah dama xanaa ma
lay ñaare bu ci amul doom itam toll ci di nàmpal léeg-léeg dina am yéene fay koor gi waaye daal pour mu am ruxsa bu mu ko fay dina xaw a jafe te it mu tiis ko lool mu xaw koo jaaxal ñu nit ñu bëgg ci laaj ay laahi biir ba xam loolu daal loolu ñu ci laahi biir koo xam ne kii léeg-léeg bu ko weeru koor fekk ci ëmb fekk ko ci di nàmpal ba mu am ay jafe-jafe ci fay koor ga li ci sareewa asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilah kon laaj bi ni ngeen ko déggee mooy soxna soo xam ne bu koor ñëwee benn day fekk mu ëmb wala mu fekk muy nàmpal li gën a bari ci ay kooram noonu lay demee kooku nan lay def ki nga xam ne dafa ëmb ak ki nàmpal boroom xam-xam yi maanaam ba nga xam ne leb na ay weeri koor yu yu xaw a takku maanaam leb na weeru koor ba weeru koor fekkaat ko fa am naa na ba fekkaat ko fa sax boroom xam-xam yi ñetti position lañ ci am am na ci bu tar lool am ci it bu yomb lool am ci bu ne ci diggante bi bi tar lool mooy ñi wax ne bi ci gën a tar mooy bi nga xam ne dañoo wax ne jigéen ji doon nàmpal walla mu ëmb ba leb weer weer fekkaat ko fa day boole yaari yëf day fay ba noppi kafaara loolu moom metti na lool maanaam day day fay ba noppi du kafaara mais leele lele day fay ba pare lele maanaam dana woor weeroo ba noppi weer wu nekk mu joxel ko dundub miski bis bu ne mu joxel ko dundub miskiin boobu wax naa ne mooy bi ci gën a diis te it nag moo ci gën a sori dalil itam nag ndax foo fekk ku ñuy sanctionné ci lislaam ci xeeti jaamu yàlla yi mooy dafa am tooñaange bu mu def te kii tooñut kenn maanaam tooñut sharia moo ne ko boo ëmbee wala nga ragal ne mënoo woor bul woor da ngay nàmpal da nga ragal ne mënoo woor bul woor mën nga cee lor wala sa doom loru ci kon sharia moo ko digal mu dog kon kooku defut lañ koy yene benn peen bi ci gën a yomb lool mooy bi ne dara waru ko dane du du fay du lele itam bi ne ci diggante bi nag mooy bi ne li weesu woon na ko lele waaye nag du ko fay na seet na weer ya na weer wa toll na weer wa toll mu joxeel ko lu toll noonu ci dundi miskin su fekkee ne am na ko waaye su ko amut kat da koy wàcc kon su ko amee bu fekkee fanweeri fan la su calculé bis bu nekk mille francs muy trente mille mu jox ko miskin wala mu séddale ko ay miskin wala mu togg ko jox leen ñu lekk moo xam nu mu ko doxale jaanam wàcc la ca loola su fekkee amu ko nag ñu dellusi ci bi ne dara waru ko su ko defee dara du ko war mu daal di koy wàcc ndax buñ fàtte ne ci kafaara waroon ci bëccëgu weeru koor te amul lum kafaara ndax daa mujj lépp wàcc ko faf ci kanam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu mooy li nga xam ne mën nañ koo sukkandiku donte nag bii ma wax ne mooy bi gën a woyof am na dalil itam nag bi wax ne dara waru ko am na dalil yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na xadis boo xam ne daf caa wax ne rotal nañ wala yëkkati nañ julli ci képp koo xam ne dafa gis reegalam yëkkati koor ci képp koo xam ne dafa ëmb wala muy nàmpal noonu la xadis bi tudd ñu ne ah ginnaaw kat ki gis reegal moom dañoo yëkkati julli te du ko fay ah kon kii ëmb tey nàmpal moom it kat kon bu ñu yëkkatee koor moom it noonu lay mel ndax xadis bi noonu lañ ko yëkkati nañ ko ci kii yëkkati ko ci kii muy benn xadis boo xam ne séddale wut séparé wut borom xam-xam yi wax loolu moom foofu lañ sukkandiku am naa ñu ne day boole ñaar yëpp nag wax dëgg yàlla gisalu ma leen dalil moom wallahu taala alam bismillah sëñ Mor aleykum salaam bismillah
asalaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum
Cheikh si ginnaaw bi ñu sant yàlla ñu ngay sant baax te ñaan suñu borom mu guddal sa fan te barkeel sa xam-xam amiin yàlla nañ ko boole ñun de dañoo amoon tuuti ci bëgg ak leerlu ci mbirum xabru ndax dañ ci am mbokk yoo xamante ni dañ leen ko doon sant ñu gàntal ci ba boobu mujjut am waaye ginnaaw bi ñu santaat leen ci beneen ñu defar ko ñu doon laaj nag ndax jëmmi yow ñi nga xam ne dañ la koy tax déet muy tabax ko waaw tabax waaw ginnaaw bi beneen itam diñ ci dolli masoon nga fi waxtaan lool ci ay xutba ci mbiri nit kuy liggéeylu ak te muy liggéeyloo war-war yooyu dox seen diggante am ci koo xam ni da nga koo def kilifa ci sa liggéey di ko fay ginnaaw gi muy jël yeneen i liggéey yoo xamante ni yëgoo ko bu nga yëg ko nga tere ko mu të continuer di ko def fii te yow la nga ko doon fay dara wàññiku ci ndax kooku itam daal la ñu bëggoon ñaar yooyu ay leeru asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum asalaam tabax xabru ci boppam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo tere maanaam dafa am nas maanaam texte boo xam ne dafa ñëw tere tabax ab xabru boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo xam sunna ñi dëppoo ci ne tabaxub xabru moom dafa xaraam kon loolu moom daganut li nga xam ne tabax ko xaraam na nag yow may tabax bul ko tabax yow ma boroom xabru ba bàyyi gannaaw boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne moom mi nga xam ne mooy bëgg a faatu su jëloon alalam ji mu moom mu leb mu lew ko mu dénkaane ne su faatoo nañ ko tabaxal ci alalam jooji ab xabru boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne ndénkaan dool yi ay neen la testament la boo xam ne kenn du ko jëfe su faatoo yi dañuy miraas alal ja rek waaye kenn du ko ci tabaxal ab xabru su fekkee ne moom ci boppam sañu ta tabaxal ab xabru ci alalam ji moom kon ñam fa bàyyi ñu doon ñi ko fa wuutu sañu ñoo jël seen alal di ko ca tabax yow ma nga xam ne tabaxee sa liggéey it bul dimbalante ca loola borom bi tabaraka wa taala daf ne wa taawanu ala albirri wa taqwa dimbalante leen ci lépp loo xam ne mbaax la ak topp yàlla wala tataawanu ala al ismi wal udwan bu leen dimbalante ci loo xam ne day indi bàkkaar ak noono wala muy indi ak jalgati te fekk loo xam ne borom bi tabaraka wa taala daf ko tere xaraamal ko nga ñëw jàppale leen te loola tabax ko alali àdduna ak li ci biiram jaru ko kon bul tabax ab xabru amma ñaareelu laaj bi nag muy ki nga xam ne dafa nekk ci biirub liggéeyam moo xam entreprise la wala tur wuñ ko mën a jox am ay employés yoo xam ne dañoo ne ci biir mu yore leen ay salaire di leen ko fay ñi di ko liggéeyal ci biir loola ndax sañ nañoo bokk bokk seeni liggéey yi bokk ca côté ba wala sañuñu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ne almuslimuuna ala shurutihim jullit yi seeni mbir ma nga tegu ca kaw sart yañ sartoonte su fekkoon ne waajoo ji ba mu bëggee def lool yi dafa diisoo kilifaam nga ne ko man kat maa ngi doon liggéey ak yow li may amit xeebu ma ko waaye léeg-léeg ñi bokkal ma as liggéey soo xam ne man tailleur bi léeg-léeg ñu yut ma lenn ca côté ba loo xam ne dañ ne lii naa leen ko gaaral wala naa leen ko daaxal man maçon bi kat léeg-léeg ñu ne ma kaay raaxaatal ma fii kaay defal ma nangam nangam ma man koo boole te du yàq dara ci li ma lay defal loolee ndax mën naa koo def am ca tuut patron ba ne ko loola wàññiwul dara su boobaa loolu dana dagal waaye su fekkee ni tàgguwu ko mu jox ko ca ndigal ca loola loolu moom sañu ko kay jaay sañu te jël marchandise bu boppam ñëw teg ko ci bitig ba di ko jaayal boppam li feeg du daa wax ak borom bitig ba bam ne ko indil sa marchandise teg wàññiwul dara su ko defee def na njuumte su ca lekkee dara yi lekk na lu daganul ci moom loolu moo tax toujours man damay wax mbokk yi di leen wax ne bépp liggéey bu mu mën a doon ci kaw suuf ab jullit di ko def ak moroomum jullitam nañ bind contrat doonal sama doom doonal sama rak doonal sama lu mu mën a doon ci àdduna bindal contrat boo xam ne li ngeen soxlaa def lépp ni ngeen soxlaa liggéeyam bind ngeen ko mu doon ay këyit ngeen signé ko mu yoru këyit mu yoru këyit kenn ku ne xam lam sañ ak lam sañut waaye yu bare bari ci juuró yi faral di am ñàkk a xam fu li nga sañ yam moo koy indi dañ ko bàyyi ca biir liggéey ba rek mu nekk ci di jàng liggéey bi wala muy muy muy nekk ci liggéey bi ba mu yàgg rek mu xëy xëy gis ne moom mi nit ñi xam nañ ko xam nañ ko ci liggéey boobu buñ ñëwee ci moom day mel ne moom la ñu sàkk ci moom liggéey bi bu yàggee moom itam li yëg-yëg bi muy am mooy war naa sañ lu ne borom liggéey bi sax li mu sañ war naa ko sañ ndax jàpp naa ne lim man mën naa ko léegi su ko defee affaire bi du problème ndax mën nga ko wala mënoo ko waaye li nga sañ mooy accord bi nga xam ne da nga koo signé ak borom liggéey bi nun nag lu bari bari ci ay liggéey fii li koy tardeel ak di ko suufeel mooy maslaa mu ëpp bi liggéey moom liggéey la tudd nañ maslaa ci lépp jàppalante ci lépp waaye liggéey jot na nag kooku liggéey la leble ak fay jot na kooku leb ak fay la ñi nga xam ne duñ ay jullit raw nañ jullit yi ci wet googu raw nañ jullit yi ci wet googu da ngay gis ci ñoom koo xam ne même ci biir jullit yi xam dara sax nag parce que loolu boo demee ci même naar yi da nga ko ciy gis da nga gis koo xam ne kilifa yi doon ci liggéey yàlla teg ci loxoom ci responsabilité lu rëy a rëy mën ngaa fekk magam ji bokk ak moom ndey ak baay ci biir liggéey boobu muy liggéey liggéey bu suufe ci biir liggéey bu rakkam boobu lu tax parce que man manam foofu la toll foofu la toll aw jàngam bu dee aw jàng foofu la jàngam toll woon moo xam planto la moo xam kuy bale la moo xam lu mu mën a doon rakk ja mën naa doon patron ba di liggéey liggéey bi jiite mbooloo ma magam ji mu bokkal ndey bàyyi nekk ci biir société bi di bale bu weer dee mu fay salaire am dem yoonam nun boobu culture nekkul suñu bopp mag gi day ñëw ne ah lii sama rakk ko moom kon maa ko moom fu ko neex dugg bu ko neexee dugg ci biir société bi xel fi fii xas ñaan ñi diw liggéey nga diw liggéeyoo nga li moo leen embauché woon yooyu loolu loolu du noonu maanaam nit ki faw ci liggéey dana xam lim sañ ak lim sañut liggéey ba door a mën a dox seen microphone bi moom doy na war su fekkee ne xamut li nga xam ne moom la sañ xamul fan la frontière am yem kooku faaw mu jéggi ay frontière am dem moo tax li ñuy laayo biir mbokk yi mooy nañuy bind nañuy bind ay contrat seen diggante ak ñi ñuy liggéeyloo ndax ñu xam sa seen seeni sañ-sañ yam donte sa dooma lay liggéeyal sax wallahu taala alam bismillah ñu ngi ñëw insha allah bismillah salaam maa ngi koy dégg waaw rajo bi de moom day yokk kii moom dama amoon ñaari laaj rek ci wàllu njibar déggoon kenn ci ku ñuy askanele xam-xam ci moom muy wax ni tolluwaayu weer wi ak lëndëmam ak ak leeram mën na jeexital ci ku jul ci ku judd ci waxtu yooyu maanaam mën na jeexital ci am xelam bu fekkee dafa judd ci waxtu woo xam ne weer wi dafa leer am xelam dana neex macha allah waaye bu dee safaan ba la xel ma dafay naqari ma bëggoon xam ndax wax jooju lu xam-xame la wala dafa màcc jëm ci ak njibar loolu mooy laaj bu njëkk bi laaju ñaareel bi dafa am ci koñ yi ñoo xam ni dañuy wone ak càcc bu amee buñ la sàccee nga dem dañu jëfandikoo ay bant bant yooyu ñaari nit dañ koy jox ba defee géndal
ah mooy géndal xanaa waaw géndal laaw ci gàttal ko waaw waaw waaye man li ma fekkee nag waa ji du ko def moom Hmm.
dafa ni yàlla maa ngi lay ñaan bi asmaikal xusna wa sifaat- wa sifaatikal uliya wax yu bari daal bu fekkee ki sàcc mbir mi mu ngi ci liste bi fekk ab liste la ñu ko jox bu fekkee ki ko sàcc mu ngi ci liste bi eh, bant yi na na daje noonu daal la ko topp ba àgg ca kamu ni moom moo sàcc may laa jëf ju mel noonu ndax ak njibar la wala ab bàcc na ci wàllu xam-xam Hmm.
jazakumullahu xayr barakallahu fiik amma bu njëkk bi muy ndax nit ki bu juddoo ci waxtu woo xam ne weer wi dafa leer am xelam day neex bu juddoo ci waxtu woo xam ne dafa lëndëm am xelam naqari loolu moom wérut maanaam wérut Euh, ñaareel bi mooy dugg ci lii borom téere bi di wax maanaam ilmu nujoom bi nga xam ne moom la ñuy tere mooy jàpp ne jëmmi biddiw yi te biddiw yi weer yi weer wi kenn benn la ci dafa am yenn jeexit yu muy amal ci sa dund yow sa juddoo ak saw melokaan ak sam xel ak say mel noonu loolu mooy li ñu wax noonu ba noppi ci kooku moom doonut loo xam ne lu dagan la daganul itam kenn di ko gëm te it loolu wérut maanaam amut amut amut benn jeexit doomu aadama ji juddu ak waxtu wu mu mën a juddu ndax su doon loolu kon dañuy wax ne ki juddu bëccëg ndax bëccëg moom jant baa fa nekk faf jant moom defe naa moo gën a leer weer ki juddu bëccëg kon mooy gën a neexum xel ki juddu guddi ah waaye loolu wérut maanaam bëccëg ak guddi ak weer waa nga faak nekku faak yooyu yëpp moom ginnaaw juddu na mucc feebarut am xelam mucc nañ xam ne boroomum xel la nit ñi rek seeni xel ñi exploité ko ak ñàkk ko exploité mooy am ndax xelum doomu aadama dafa doon loo xam ne ngir mu continuer di ñaw faaw ñu di ko xaj ci xam-xam suñ ko dee xaj ci xam-xam muy mokkal la mu war a mokkal di déglu la mu war a déglu xel mi day continuer di ñaw boo ko bàyyee muy nelaw nag day mel ne rek benn weñ boo xam ne da nga ko bàyyi ci taw bi muy tawte bu yàggee day xumaag bu yàggee dootu mën a dagg dara su ko defee dañ wax ko xel mi daa naqari fekk dañ koo exploité wu mais xelum doomu aadama lu nekk lu lu lu bëree bëree bëree bëri mën na koo xam lu doomu aadama xam rek ka ca des mën na koo xam ñu bëree bëri dañuy defe ne nit ki dafa yeewu wut moo tax mënut yenn yi loolu nga dégg fii ñoo xam ne dañ naan nit ñu xonq ñi day seen kawar yi ni mu gën a gudde suñ kawar yi noonu la seen xel yi gën a gudde suñ xel yi te borom bi tabaraka wa taala mi joxe xel yi tënku ko ci kawar yi waaye dadikee lañ ko tàggat loola lay mën dañ ko tàggat loola lay mën fii ne boo demoon ci sun kaw ga ña nga jàpp ne dañoo xaralawut wala moosuñu mën nañ laa defaral yoo xam ne kay defar avion ba fële mënu koo defar maanaam ki defar avion bi wala saaruux ba muy missile bi di naaw di dem ci kaw jaww ja boo nekkoon kaay ràbbal ma fii ak mboolaan waaye du la ko ràbbal parce que jàngaluñ ko defe naa ñu bari ci yéen xamuñu ak mboolaan sax foofu ah oustaz li defe naa ne ñooñu ñooñee di defar ab yooyu duñ la mën a ràbbal ak mboolaan te boo demee gone gu ndaw ca suñ dëkki kaw ya saa bu waxtu boolu jotee ñoom ñoo lay ràbbal ak mboolaan di ko jëfandikoo xale yu ndaw mu ngoom gusaas li nee na xale yu ndaw ñoo la koy ràbbal moom gusaas la jóge xam na li may wax kon li ma bëgg a wax foofu mooy xel mi lépp a ngi ci ndab la waaye loo ci sotti rek mu nekk ci loo ci sottiwul mu ñàkk kaa nekk kon nañ jàngal xale yi nañ fexe bañ man nañ fexe bañ xàmmee nañ fexe bañ am ak ñëw amma bi ci des nag bi mu doon wax léegi muy wàllu sàcc bi sàcc na wala càcc gi am na ñi bëgg a xam ku mu doon ñu ne dañuy def li ñu tudde géndal géndal ñaari bant lay doon yoo xam ne yu lambax lay doon day def nii ñu jàppaloo kee kay ñuy jàppaloo ko ca des ko ca des ñu ne nit ñi dañuy dugal seen loxo ñuñ tuumaal ñu jàpp ne ñoo ko sàcc dañ leen di woo ñoom ñëpp kenn ku ne dugal loxoom ñu ne ki sàccut bu dugalee loxoom moom bant bi du ko jàpp day dugal rek génne dem ki sàcc nag saa bu yoree loxoom rek ñaari bant yi dañuy àndandoo téye ko loolu ay caaxaan la loolu doonut loo xam ne lu sharia sukkandiku la benn ay nax la wala njabar a ngi ci biir te yu mel noonu du boobu rek waaye yu bari la yu baree baree bari la yoo xam ne dañ koy naxe nit ñi ci nii ci kaw lu bari mag ñi bañ ko daan def ñoom liñ ci jublu mooy pour bëgg a feeñal sàcc bi suñ leen rangaleeg bant bi ni mu mel ak kii jàpp fii kii jàpp fii ñu di leen woo kenn par kenn dañoo jàpp ne bala ñoo agsi ci sàcc ka ko def ka def yëf yi moom dana tiit ne man loolu du ma ci dugg damay téye sama loxo du ma ci bokk ñu ne ko kon yow yaa ko def lu mel noonu lañ ca doon jublu waaye nag pour jàpp ne bant bi ci boppam day jàpp nit ki xam ne kii mooy sàcc bi loolu moom doonut lu wér su fekkoon ne dem na ba doon lu wér jàpp ko tey bu ëllëgee dana jàpp keneen ku dul moom ku dul moom benn mbokk ngi nettali ci loo xam ne lu am la ñoo xam ne dañ doon jëndal mbooloo ma taxawoon ñëpp bant bi da leen a jàpp fa ku tàllal rek ku tàllal rek mu ker bi mu kerpe waa ji ñu ne ah déet kooku xarama mu ne déet na ñëpp def ba noppi rek ñu ñëw ku tàllal rek mu bant bi tey ñëpp mu ne ñaa ne sàcc sàcc yu mel noonu faaw ñu bàyyi ko xel am na waa joo xam ne yi mu doon def am ndoxam la yoroon moo xam ne nit daa faatu pour jox la rek misaal ci caaxaan yi nga xam ne ñu ngi koy naxe askan yi parce que bopp yi nag dara da cee nekkul wax dëgg yàlla waa ji am ndox la yor moo xam ne kuñ ko jox da ngay wax waa ji daa faatu ñu ciy tuumaal ay nit ñu ne ñii ko rey ñii ko rey nangam nangam comme yooyu ñuy tuumaalante ay njëkk fa yu nuróog yooyu ñu jox benn waaye mu tàmbali di waxtu di wax di soow maa def lii maa def lee nangam nangam coow li baree bari kër gi di bëgg a tas ku xam yëf yooyu daal di ñëw ne ana ki fi indi lii ku mu doon ñu ne ko mi ngi nii mu jël la desoon di ndox ma ne ko am naanal mu naan ko moom borom yëf yi fi saa si mu tàmbali di wax naan maa maa def lii maa jaar fi maa dugg nangam mu ne leen nag mi ngi nii da leen di nax rek jëm ni ndox mii mu jël këtijaan taabe la jël kooku am ndox la moo xam ne boo ko xoojee moom këti jantaabe boo ko joxee nit ki mu naan ko xeetu dorog lay def ci moom bay dorog spécial la ndax lam fekkoon nit ña di ca wax ca loola lay wax xel ma nekkatu fa waaye làmmiñ wa day continuer di wax rek kon loola la leen doon jox kon yu bëree bëri yoo xam ne ñu ngi koy def nit ñi day askan woo xam ne culture yi fa war a nekk ak xam-xam yi nekku fa doon ñu yomba nax ñu continuer di leen nax ci yu mel noonu rek la kon nit ñi nañ leen jàngal diine nañ leen ci yar nañ leen xamal nañ leen yee ñii def yooyu yëpp dañoo gis ay client rek waaye su nit ñi yow woon dañ fay jóg dem fi amul benn réew ci réew yi nga xam ne dem nañ nga di fa dikk di fekk ñu mel noonu ñuy def yu yu nuroog yooyu bismillah
comme ateb jabar mooy yéefar yow mi yor kër di luwe ndax sariya may na la ngay luwe ñu mel noonu salaamaaleykum alhamdulilah ndax ki nga xam ne daa yor këram di luye ab jabar ñëw bëgg a luye këram fas fu yéene def ab liggéeyam ndax da ko koy luye wala déet dugg ko luye kooku mooy lu mel ni ki doon wax léegi ne ko xabru bi bul ko tabaxal nit yow maçon bi yow mi yor si kër di luye te mu wóor la ne waa ji loola la fay def si bul ko luye su fekkoon ne nag jëmm ji ci boppam xëy na moom jabar bi daa ñëw ne fii dama fee bëgg a dëkk kepp waaye nag la muy def ci ay njabar ak yu ko nur feneen la koy defee ji kooku dara nekku ci ndax ab yéefar ci boppam mën nga ko luy sa kër sharia terewu la ko bu la wóoree ni kii du jullit ab nasaraan la wala ab yahut la wala leneen la ne la dama fi bëgg lu bu weer dee ma fay moo xam lu muy liggéey bu xëyee dem liggéey ji bu weer dee mu fay la te defut lu bon la ci sa kër su boobaa dara nekku ci insha allah naam waxal rek maa ngi dégg insha allah salaamaaleykum
di déggee waxtaan bu baax a baax a baax ñu ngi laaj benn mbokk boo xam ne ab daay lañ ko tuddee day góorgóorlu vraiment ci woote bi ci liggéey bi njabar nee na gëmu ko waaye day def ci wet gu loo xam ne dafay xaw a jaaxal ñu mel ni man ndax li toll ay bis bu ñëwee di ko tàggu ab tukki da lay tànnal ay bis ci mbiri boppam da ciy tànn ay bis yu muy def lii ak yu muy bàyyi lii di wax bis yi dafa fat ak yi dafa def nii te ab watakat lañ ko jàppee loolu man jaaxal ma xam naa ne man gëwma loolu waaye nag mbir moomu daal jaaxal na ma loolu te ab watakat bu mag la jàppe boppam moom lañ ko jàppe salaamaaleykum wa rahmatulah alhamdulilah laaj bu am solo laaj mooy nit ñi daf cee am ñoo xam ne yëf yi ñuy def dañ koy wutal bis am na ñoo xam ne dem nañ ba àgg ci bis bii di su ko tukki am ñoo xam ne àgg nañ ci bis bii di su ko sangu bis bii di su ko watu bis bii di su ko maye soxna wala weer wi bis bi diisu ko ba buub sax sa kër diisu ko fóot benn bis bu ne ñu wutal ko gaaf goo xam ne ku ca def nangam loola musiba mën naa wàcc ci sa kaw loolu ñi xam ne sharia wutalul bis yi ak weer yi ak at yi ay gaaf ay gaaf amul ci bis ak at ak weer gaaf ci nit ki lay nekk wala ci pas-pasam bi waaye bisu yàlla yi yëpp a yem loolu nag ka koy def mënuñoo jàpp ne jabar la su fekkee ci loolu rek la yem su fekkee ci loolu la yem mënuñoo jàpp ne jabar la waaye la muy def dañuy wax ne biddaa la maanaam ay biddaa la tëral boppam yoo xam ne lu dagan fii ak lu daganut fële la waaye loola doonut loo xam ne lu wér la bisu yàlla yi lépp lu nit ki soxla mën na ko cee def bis bañ la naan bis bi kenn mënu cee sangu am na soxna su ma ci daan faral di waxal fonk yu mel noonu lool ma ne ko dama lay jox misaal bis bi nga ne kenn mënu cee sangu ndax ab liir bu ci juddoo danañ ko sang wala déet mu ne ma ok dañ ko sang de ma ne ko moo ne moom de tëkkagut gàllaaj naanagul ay saafara xanaa moom su fekkee moom mbir lii alage bu ñëwee moom ci moom lay war a gën a gaaw ginnaaw amul doole tëkkul gàllaaj naanagul saafara ba noppi sang nañ ko ci bis bi ñëwoon ku ci sangu da ngay alko xanaa moom kon fi saasi rek te liir yi ñuy dox ci kaw suuf ñépp tey bañ juddoo doon ay liir sang nañ leen ci bis boobu ku ci juddu bis boobu dañ lay sang ci bis boobu moo xam àllarba la moo xam beneen bis kon loolu lépp mooy dugg ci liñ doon wax léegi rek culture la boo xam ne nit ñi ñoo ko doonante ci seen i maam mu doon ay biddaa doon yoo xam ne sharia nanguwu ko ndax tëraliwut noonu te wàññiwul dara ñu la naan bisub àllarba kenn du ko xëy tukki bis bu ñu waroon a tukki réservé ci avion dajeeg muy àllarba mënuñu ca dara faaw ñu dem te bis bu ñu waxee ne kenn du ko tukki boo demee ci aéroport ba da nga gis avion yi di départ di dem di àgg fañ jëm te du leen wàññi dara kon yu mel noonu dëgg-dëgg nit ñi wax dëgg yàlla ñoo koy weesale seen bopp rawatina nag ab jullit boo xam ne day xëy di jàng alquran di déglu sunna di julli di dégg nodd ak la ca ne ca tawxid nga di ko dégg juróomi yoon di dem di wujj ci jàkk ji di julli kooku wax dëgg yàlla war ngaa weesu war nga weesu yu mel noonu nit ñi yeewu kese sax te amuñu diine dem nañ ba yu bari ci yu mel ni weesu nañ ko ndax seen civilisation nanguutu naam
jazakallahu xayran yaa cheikhana ñuy wax rek ci lan nga ñuy nasiha ci wàllu tàngaay bi dañuy gis ci ñuy julli ñu bëri ñuy sol lu ci mel ni suellement te ànd ak loolu day dem ba feeñ bu nekk lee yëre bu fatt naka nga ñuy nasixee foofu noonu insha allah ci ahadi julli nga jublu wala ci julli ci julli alhamdulilah lu am solo la waxtu tàngaay daf ne am na ñoo xam ne seulement yi ñuy sol moom la ñuy jullee soulèvement bi bu fekkee soulèvement bu ngàcc la nga xam ne ab morto rek la buñ gàcc ci loos bi kooku munta julli yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa yusalliyanna ahadukum kenn ci yéen bum julli fi sawbil waahidi ci menn mbubb laysa ala aatiqihi minhu shay'un beneen riwaaya bi laysa ala mankibayhi shay'un kenn ci yéen bu mu julli xadis mi ngi ci buxaari muslim kenn ci yéen bu mu julli fekk mi ngi sol am mbubb moo xam ne dara nekkul ci ay mbaggam kooku dañ koo tere kon soulèvement bi ñuy tudde soulèvement bu ngàcc kooku mënta julli jullit bi bu mu ko xalaata jullee moo xam nag ñu bari dañoo defar nag booy julli ci mbooloo da ngaa war a sol yëf yi ba mu jot waaye boo nekkee ci sa biir néeg mën ngaa sol ñàkk sol waaye du noonu li ngay sol ci julli gi du bëti nit ñi tax waaye jëmmi julli gi ci boppam moo tax moo xam ci néeg ba nga nekk moo xam ci lëndëm nga moo xam ci biir jàkka ji la ngay sol na doon col moo xam ne mu mënee sa sol ci biir julli la bokk loolu ci fonk julli bi la bokk ci respecté ko ci la bokk ñu xam ne julli ñu bari dañ lay wax ne loolu daa mën a nekk ndax du awra wax nañ dëgg du awra awray góor mi ngi tàmbalee ci bëti wóom ya ba ci jumbux ba loolu mooy awray góor waaye ñu xam ne ci biir julli danañ muurloo nit ki ba muurloo ko lu dul awra loolu ñu xam ko sharia ci biir julli tekkiwul ne lu mu lay muurloo lu nekk rek dafa doon awra jigéen ci biir julli dañ koy muurloo ba muurloo ko ñaari ndëggoom ci julli te li ëpp ci borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne ñaari ndëgguy jigéen mu ñaari tànk yi nekkul awra waaye teewul dañ ko koy muurloo nag ci biir julli nekk noonu góor biir baag dënn baag ba ci ñaari bagg ya bu nekkee ci biir julli dañ ko koy muurloo ànd ak ne loola nekkul awra kon muur gi ak doon gi awra